ay maqaam yàllaaw bisimil ilaay ci barkeb say ci fàddilu mi buru yàlla dool dinoo ay maqaam yàllaaw auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala seydina muhammad nabil umi wala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa sallama taslima auzu billah bisimillah inna waliyallah salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu mbokk internet yi nga xam ne yéen a ñuy suivre à travers Salam Vision ñi ngi am mbégte tey bu baax a baax li koy sabab itam mooy dañu dellu siwaat ci suñu beneen numéro bi nga xam ne mooy suñu émission bi nga xam ne lépp ci jotaayu xam-xam lay doon muy faj sa jàngoro fi nu ñëw nag tey fas yéene fay def si jotaay xëy na tey lañ koy njëkk a gis ci suñuy écran waaye du tey lañ ko xam xëy na nag dafa newoon fa mu newoon toog jàpp njàmburam di liggéey liggéeyam ndax xëy na moom xamoon na li war a xew xamoon na itam liy waaye bi waxtu wi jotee yéesi na ci bi mu jotee te dinañ yéen a jàkkaarloo moom léegi ñu gën ko xam ci sëriñ sa Mboup buñ ne sa Mboup nag xel yu bëri dina am fu mu dem ndax magam jigéenam xaritam soxna Kya Aidara Mboup ñoom ñaan ñu bokk ndey ak mu ñëw tey fas yéene jël relève bi nga xamante ni soxna Kya Aidara Mboup moom mi ko yoroon moom mi moo nar a ñëw uutu ko tey ci liggéey boobu ni ñuy def rek mooy dañuy dal koy bàyyi mu nuyoog askanu senegal nuyoog mbokk internet yi nga xam ne ñooy seetaan Salam Vision waaye itam nuyoog àdduna wërngal këpp yi nga xamante ni kenn ku ci nekk wala réwoonte woon nga wala soppe woon nga wala am di jàmmalo wala xarit nga woon ci ki nga xamante ni moo fi bawoo di soxna ki yaa ay dan boobu suñu xel du jóg ci moom saa su ne ñuy ñaan fa mu tëgg yàlla na ko fa sëriñ Babacar defal tawféex may sax asalaamaaleykum ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziar mhm. nuyul senegal yi nga xam ne ngi lay seetaan ok je dis bonsoir à tous les Sénégalais Et je salue toutes les familles mm-hmm. qui sont au Sénégal ici. Mm-hmm. Et je vous aime. Et je vais saluer tout le monde entier. Mm-hmm. je vais saluer aussi le président mmh. avec ses compagnons. Machallah. Et je vais saluer le maire avec son compagnon. Et je vais saluer tous les Sénégalais. Mmh. Et je vais saluer les chefs de quartier, là où j'habite, cité Alimso. Je remercie Dieu aujourd'hui Je suis relève de ma grand-sœur mhm. qui a Aïdarambou. Mhm. Elle est mhm. donc mes familles, ils ont dit que je n'ai qu'à venir prendre relève de Donc je vais saluer tous les Sénégalais à la part de Kia et Drabou. Mm -hmm. ce qu'ils ont fait pour ma grand-sœur, mm -hmm. que Dieu paye tout le monde. Et je vais saluer tous les marabouts qui sont au Ni femmes, ni garçons. Et je salue tout le monde. et je, je, tout le monde aussi. Mm je veux que tout le monde n'a qu'à me soutenir. Mm je vais, si j'ai fait une erreur mm mon émission, mhm. n'a qu'à m'appeler sur mon numéro, ils mhm. n'ont me corriger. Je suis disposition de tout le monde. Après, je vais saluer ma mère mhm. qui s'appelle Anna Kamsogo. Voilà, et je vais saluer mon père qui est décédé, Sidimbo. Aujourd'hui, ils sont pas décédés. Parce que a dit que Si tu as tes parents, mm -hmm. s'ils sont morts, mm -hmm. en ce moment, tu vas commencer chercher bénédiction. Tout à fait. Tant que toi aussi, tu n'es pas mort, mhm. il faut chercher bénédiction de tes parents mhm. jusqu'au jour de ton destin. Donc, je vais saluer tout le monde mhm. et que Dieu n'a qu'à bénir notre parole. macha allah merci beaucoup Maïssa Mbow vous venez de vous exprimer en français euh, euh, j'aurais quand même de deux mots en bambara et deux mots en wolof pas mal de personnes qui sont en train de voir cette vidéo ils vont dire que ni Maïssa c'est un marabout mais un marabout qui ne parle pas wolof alors que Maïssa Mbow parle wolof comme si c'est pas possible comme sa grande sœur <laughs> qui a Aïdara Mbow donc deux mots en en et deux mots en bambara on on poursuit. problème. Mhm. comme sama wolof bi leer. ndeysaan. man sama yaay Anna Kamisugu mhm. sama pap Sidi Mbuub mhm. sama mag Kiya Aydara Mbuub mhm. yàlla dafa dem sama mag dafa gaañ léegi sama yaay ak sama mbokk yi dafa ma yónni ma ñu def relève yow Kiya lan ngeen bokk même père même mère ndey ak baay waaw après Kiya man ma ko topp ci ay góor man may taaw boobu moo tax sama yaay nene dafa ma ñaan ak sama mbokk yi ne ma ñu toog. Mhm. def relève Kia. Mhm. léegi maa ngi ñaan mbokki sénégalais yëpp. Mhm. su man dama jun ci sama wax. ñoom yëpp dina ma baal. est-ce parce que man xale la. et puis encore c'est la deuxième fois. dama toog ci écran yi. c'est wax ak nit. <laughs> dinañ waxtaan ci première fois bi sax d'ailleurs. incha allah incha rabbi donc maa ngi ñaani waa sénégalais yëpp. ay musulmans. Mhm. ay chrétiens. Mhm. fu ne. Mhm. ngi ñaan ñoom yëpp. kenn ku ne nga ñaan ma. ma soo soo ma ñaan. bul fàtte kii ay dara bu. soo gis tey maa ngi fii. toog ci Sénégal. wax ak yow. grâce à Kia. même su fekkee da nga ma laaj. mais sa si yow mun naa ñëw toog fi benn jour. man dina la wax du dëgg. mais su yàlla ne nit avant nga dee. nga def benn affaire obligatoire nga def. Mhm. bon moo tax te maa ngi toog fii. Mhm. même man pour wax ci écran bi bugguma ko. Mhm. mais gars yi dafa ma sonn. nee na Maïssa ay clients xamul la. Maïssa ay clients xamul la. dama bugg nga wax. ak waa sénégalais. ci YouTube. maanaam problème sinon su fekkee man kese la. dama sama xam-xam. sama def. naa indi ay clients. Mhm. mais su nit yëpp mi ngi wax ci yow. Mhm. donc je suis obligé. waaw luñ la ñaanee nga may ma def kon noonu. boo ma taa dama la woo. Mhm. nga ne ma ne Papa Talla dama bugg nga ñëw. ñu def émission. pour woon gars yi kii a dafa dem ba demul. man maa ngi fii. kenn ku ne. soo xam. kii a dafa def liggéey ak yow. liggéey bu parew. man maa ngi fii. nga woo ma ci numéro kii a man dinaa def tout possible. ñuy résoudre décès yi. Mhm. su fekkee garab mi nga ak beneen nit. Mhm. utiliser wu ko. Mhm. parce que moom xamul. nga woo ma nga won ma photo. dinaa la expliquer. effectivement fii encore soo ko utiliser ba pare. gisoo résultat. woo ma ñu defaraat encore. boobu am benn problème. macha allah incha allah macha allah en tout cas en tout cas ça fait plaisir au moins parce que euh, euh, malgré le relève de Kya que tu donc tu es prêt à assumer cette responsabilité donc tu sais tu tu confirmes que tu tu tu prends le relève et cette relève ça a par toute une famille entière. Machallah, c'est une très bonne idée et puis voilà. Donc le numéro de Kya Aidara actuellement, c'est avec Plus ton numéro personnel. C'est plus mon numéro personnel. Tu habites aussi là où Kya Aidara Mboup habitait. Là mhm. mhm. Machallah. donc chers amis téléspectateurs yi nga xamante ni yéen ay suivre suñu jotaayu xam-xam bi yéen a ngi dégg may sa mbuub di rakk ci ki nga xam ne mooy soxna ki ay dara mbuub mi fi nekkoon ñu borom dogal ca moom la muy dogal ginnaaw bi mu ko dogalee ci waajuram wu góor suñu papa ñun ñëpp wax dëgg yàlla alaaj Sidi mbuub mu jóge fi yàggul dara ki yaa moom itam doonoon doomam doonoon itam borom xam doonoon itam nit ku baax dem fekki ji ko bi mu demee tamit wax dëgg yàlla famille bi ne ñoom duñ toog di salaan ki topp ci kiyaar na jóg jël liggéey bi yeggali ko mu mel ni may sax kon liggéey bi doonut loo xam ne yow da ngay ñëw di ko tàmbali si waaye kon dafa mel ni yow bi ngay nekk ko booba yow tam yaa ngi doon liggéey foofu si liggéey yor sa yoonu bopp man mosu naa ñëw Sénégal benn yoon gis naa la ngeen def ci fête la woon nga def ci ak kiyaa benn émission waaw dinañ ko wan seen spectateurs yi waaw à part ça tam dama mosuñu encore mhm. Sénégal mhm. liggéey dem mhm. à part ça dama dem Kaolack tam dem liggéey foofu ok mais sama liggéey prépare mhm. Mali ak extérieur ok foofu laa liggéey mhm. waaw macha allah donc kon donc en ce moment fi mu moom tu es basé à Dakar plus pour le moment maa ngi Dakar fii ok maa ngi ñaani yàlla mhm. su fekkee ne sama wërsëg mi ngi fi yàlla dina ma dimbali su fekkee ne sama wërsëg nekku fi avant ma am problème ou bien créer problème ci nit maa ngi ñaani yàlla yàlla def tout possible ma ñibbi si mhm. kër sama yaay mhm. soo gis itam man dama toog fii mhm. parce que sama pap fii laa dama ko denc sama mag itam fii laa ko denc parce que kii ay dara mbu mi ngi ci Tiwaawan sama pap tam sam mi ngi ci Tiwaawan bon moo tax man dama toog fii waaw macha allah en tout cas un grand un grand merci et puis beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup de surprise ci ci ci relève bi nga xamante ni wax dëgg yàlla yaa ngi koy jël te surprise yooyu itam benn bu ci ñëw rek yàlla na doon tawféex yàlla na doon loo xam ne lu lay jig la waaye yàlla na doon tam loo xam ne tawféex lay doon ci ñi nga xam ne ñoo doon ay wëlëri Kia wala ñi doon yaakaar Kia ni mën na faj seen aajo kon booleem aajo yooyu itam tey jii képp ko xam ne itte am nga koo ci rek jokkool ak Maysa Mbow numéro Kia Aidara bi nga xam ne moo doon 78 630 00 47 mi ngi dox ba tey mi ngi ak moom boole ci ak moom itam numéro bi nga yoroon bi ba ma fa liggéey ak lu mel ni diwaanu Kaolack waaye plus particulièrement bitim réew la ëppoon ñu muy ñu muy jëflanteel ci wàllu liggéey donc gannaaw natt bi tege na ci kawam mooy kii a neewatu fi ci saayir waaye mi ngi fi ndax ñoom ñaan ñoo bokk benn deret bokk fa ñu meññu ko bokk la ñu jàngandoo ci xam-xam mu déw moom jël si relève bi ndax famille bi ñoo ko tànn ne ko yow yaay dem jël relève boobu kon macha allah ni ñu la ñaanal yàlla nga yeggale ko ak sa sago ci daraja yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam mais tey ji su ma la laajee Maysa ne la yan quelles sont les maladies que Maysa Mboup gère et quelles sont les bénédictions que tu peux faire aux, aux, qui en ont vraiment besoin par la grâce de Dieu. Tout ce que les, les maladies que tu peux accomplir les bénédictions que tu peux accomplir par la grâce de Dieu sont. Donc, Alhamdoulilah, mhm. nit si nit ku ne soo ñëw. Mhm. su fekkee ne da nga am feebar. Mhm. la seet ba par consultation waaw nga def consultation même soo dem ci hôpital. Mm-hmm. il faut que nga def consultation. Mm-hmm. nga xam ban feebar boroom dafa am. Mm-hmm. su fekkee ne dama ko set. su arawana yi dafa ma woon. mun na ko def. dina la wax vérité. mun na faj la. su fekkee ne mun ma tam. dina la wax tam munu mën a faj. parce que yow kese munu def yëpp. déedéet. parce comprendre. parce que sama mag. dégg rek dafa wax mhm. mu su am problème. déedéet walaay la ñaan yàlla tam. Mhm. su man dépassé ko. Mhm. du ma wàcc ci suuf. waaw mais su woo amu hémorroïde. alhamdulilah am naa garabu boobu. soo am fibrom. bul def opération. am na garabu loolu. trop tard. trois mois dina la jox après nga def def contrôle. suñu d'accord ci prix nga fay moitié après soo faju nga fay deset bi e puis encore su am feebar rawane tam mm-hmm. alhamdulilah boobu moo nekk sama spécial mm-hmm. waaw boobu kay ay rab ak yooyu noonu waaw même si arab dafa daan mm. nga ñëw rek parce que su arab dafa daan man dina ko laaj yow ban rawane la dina wax tuuru dina la laaj yow kese la dina wax waaw ba du moom kese donc ma wax lu tax yaa ngi topp dina ma expliquer su fekkee ne dina ko laaj tam yow murid la ou bien féticheur la mhm. boobu dinaa wax boobu tam mhm. su wax su mun naa ko faj boobu tam mhm. dinaa ko faj su mun ma dinaa ko wax a ah, arawaane bi kay ñëw ci man su ma xool su mun ma na dina na tam soo ñëw dina la wax mun ma ko waaw macha allah mu doon lu am solo nit moom wax lu mën a xew moom wax li nga xam ne mooy aqullaahi taalaay moom moo gën a il faut toujours parler de dire la vérité ah. parce que c'est c'est le plus important et puis c'est ça qui qui généreux à un certain moment. Donc, c'est très important. Mais dis-moi, j'ai entre, euh, entre fétiche et magie. quelle est la différence Bon, affaire magie, bi, gars mi ngi wax comme programme ma ko. Mhm. sinon dina la def affaire magie. non boobu de faaw ñu may gars yi lan mooy magie moom. parce que li ma gis gone yi di ko fooyee ci kër gi moom. benn jour. Mhm. dina la woon magie. ok mais pour man. Mhm. fen la. dëggantaan. parce que doom adama mhm. soo buggul liggéey mhm. bul fen man wax ma man wax dinaa wax vérité toujours rek mais lépp moom dëgg lay doon bul wax bul fen rek mhm. parce que magie bi man ka muñ ko et puis encore duma ko jox nit. Mhm. duma boole ak nit. Mhm. waaye xam nga ko bu baax xamu na ko bu baax ma ne benn jour dina ko def si sa kanam. <laughs> incha allahu rabi. incha allahu rabi. waaw waaw ci boppam naaw bii dëgg la. <laughs> du dëgg seetal loolu rek doomu aadama. Mhm. bul def lool ok essayer yaa ngi comprendre. mais soo bëgg xaalis. am ay liggéey 3 mois. am na liggéey 1 an. am na liggéey 6 mois. liggéey ku ne ak sarax la. su fekkee ne yombul naa. dina mhm. la def même liggéey boobu. Mhm. du dem nga dem ci taal bi nga am xaalis de. ou nga for xaalis de. Mhm. du loolu nga am relation. dina la wax encore nga am relation. par exemple su yee yaa ngi lekk mille par jour nga am relation nga am 50000 nga am relation. nga am 10 millions. nga am relation. ouverture daal voilà nga am ouverture. mais pour wax la man liggéey. nga dem sa kër. nga fekk xaalis yi foofu. déedéet loolu amul fenn mun ma non loolu kay amul fenn. te tadi mun naa amul naa de mais mun ma. wallaay non amul loolu kay amul fenn. voilà parce que nit il faut que nga wax dëgg. Mhm. voilà boobu moo baax. Mhm, macha allah donc donc fétiche kon boog moom fétiche moom fétiche boobu bokkul ak magie magie moom ay caaxaan la te fétiche moom lu lu lu lu. leer la. fétiche. lu leer la. Mhm. bu lu gis yére bi de. yére ku ne. ak arawane. yére ku ne ak arawane. Mm-hmm. est-ce que yaa ngi comprendre ah, parce que man gis naa différentes différentes. <laughs> voilà mm-hmm. bi yére bi. yére mouride la. bi yére bi yëre féticheur la. dafa am ay féticheur tam ay différence mm-hmm. comme dafa am ay mouride ay différence arawana kiyaa dafa am. man sama doom la. arawana man da am dama am boobu doomam moo nekk ci kiyaa. ah Tamba Bambi. waaw. te te te te te arawane man dama am. moom doomam moo nekk ci kiyaa. Ah, Sarawaan doomam moo ne ci Kia. a ok sama mooy kan. man sama xanaa yoo gis sama. si man kay loolu laa la dama ci naroon ñëw sànq parce que tey dama ñëw nga indi ma beneen feem parce que tey bi ma ñëwee sax solo yëre féticheur yeeg si yëre yooyu noonu dinañ ci ñëw léegi mais nañ yeggali ci ci ci ci ci sa raw bi ba pare. voilà man sama rawane Mouride la. ok Gafure Souleymane kooku maire la. Hmm. mais benn jour dina la wax histoire kooku. ok sinon moom féticheur. Hmm. da nga xam jigéen féticheur bu mag. Hmm. moom la. mais après yàlla defa def ay yeneen fi arawane dafa ko ñaan baat léegi dafa ñu ni murid ok kon jóge na ci fétiche ba doon jullit ba doon murid moom léegi mais soo bëggul def su ma bëggul def liggéey féticheur mhm. ma dem ci canal boobu su ma bëggul def liggéey murid ma dem ci canal boobu tam kon yow da nga yor say canal boobu branchement yoo xam ne fu la ngay jaar ma ne fu ne mun na pétaaw mun na seet ci suuf mun na seet ci bikk waaw même si nit soññu mm-hmm. man xam na yu kan la alhamdulilah. macha allah <laughs> waaw. téléspectateurs yi kon yéen a yéen a ngi déglu ki nga xamante ni mooy sëñ Meissa Mboup nee naa nag fi ne ñu bari dañ naan xam-xam dañ koy doon ñu naan xam-xam dañ koy nangam waaye dafa mel ni moom li muy wax leer na naañ donte bu fekkee doon am na ci jóg na moom dem gëstu ji te gëstu dafa gën a wóor lépp def naa ne nag kon gannaaw bu doonee moom gëstu ji na. jàng na waaye mi ngi uti ji xam-xam ba tey ba tax na moom li mu yor xeet na ko sax nag waaye mi ngi ciy dimbali jaami yàlla yi te dégg ngeen ko moom nee na li ëpp solo ci li muy wax mooy mën na mën na juum fenn waaye nee na bañ a fen moom mooy li gën a wér lu muy wax daal dëgg lay doon ci moom kon macha allah rabbi yal na yàlla taxawul te motali sa yéene ci loolu. wax na ko léegi fi ma bëgg ñu ñëw bala ñoo jàll ci ñoom pettaaw yeeg ñoom kii paftan beeg ñoom nen yi may damay gis. tey ñu bëri dañ leen kiyaa ba ci kiyaa bu ñu ñëwaan dafay sol yëre féticheur yooyu genre yooyu mais mooy sa tey dañ ñëw fekk la nga sol lu lu lu rafet lu oyof lu simple toog lan moo sabab lii waaw parce que yëre bi dama sol nii mhm. yëre sama paap la ah. parce que sama paap dafa gaañ léegi ñun dafa séddale yére yi. Mhm. léegi bii sama boos la. macha allah léegi boobu moo tax dama sol boobu. Mhm. pour am bénédiction sama papa. kon barke ngay wut ci góor gi. barka ndeysaan yaa ngi comprendre parce que mhm. su ma sol yére bi léegi. dina xalaati ci kiya. ndeysaan mënu maa wax. parce que doomu aadama. bul fàtte. bul fàtte rek. déedéet aduna. loo def def ci aduna bul fàtte sango. est-ce que yaa ngi comprendre. nit ku ne. bay sa xarit. Mhm. mais bu lu bay sa ak lu mu demee demee. Mhm. mais dina wax benn affaire moom benn important. Mhm. nit di ku ne. kenn bul fay ak sa yaay. yaay. macha allah. Ah, Et j'ai l'impression que Kiamem disait toujours cette, cette, cette, cette, phrase. Il disait que tout en chacun voulant venir chercher quoi que ça puisse être. Et tu n'as pas la bénédiction de ton papa ou de ta maman ne viens pas parce que tu vas pas avoir ce que tu tu tu cherches après. Papa Talla. dina la wax benn affaire. mais su ma wax loolu gars yi dinaa lu tax. nga wax loolu est-ce que soo wax loolu dina am client. man dina am client. avant nga jox ma xaalis. ak avant nga ñëw seet ci man. sa yaay mi ngi xiif. bi yóbboo nga bàyyi man nga jox ko xaalis sa yaay ba pare. moo gën a wóor. moo gën a wóor. mais ku dëgër bopp ba ñëw nag est-ce que yow di nga xam ne kii fi ne joxul yaayam. ma ne. soo ñëw su ma seet su fekkee ne doo def dara ci sa yaay. Hmm. man dina wax nga jël sa xaalis nga dem. loolu de leer moom <laughs> ma ne ko loolu de leer na moom. Papa Talla dina la wax benn affaire. Hmm. dafa am benn problème ci àdduna. Hmm. nit ku ne lu am dara. bul fàtte sa yaay. surtout. soo fàtte sa yaay. biya boo nga dee moo génne. soo bañ jox xaalis si sa yaay nga dem jox ko sëriñ. Mhm. man ma la wax loolu. jërëjëf alaaji Maysa Mbuub macha allah bi ci waxtaan wu am solo bi waaye ci leeral gi man ñu doon wax naan fi ne dégguñu wolof xam naa ne li ngay wax ci wolof moom defe naa ne bu ñu ko déggee xam ne moo si ne mën nga leen a jaay fi mu toll nii moo tax fi ne naa ko baaxul daal am na ci loo xam ne erreur weesu ko may Maysa wax nga ko léegi dangay ngay seet. ci suuf. da ngay seet ci petaaw. da ngay seet ci bi. nu loolu xam-xam la boo jàng ji gëstu leen fenn fu ci nekk wala naka la demee noonu ba loolu yëpp nga mën koo. bon xam-xam boobu avant man man dinaa nekk xam xam-xam. Mhm. man tailleur la. tailleur nga woon. waaw parce que sama papa tailleur la. waaw c'est vrai. mais yàlla dafa def. Mhm. comme man sama yaay boroom xam-xam la. Mhm. bon sama maam tam. noonu la mel. bon yàlla dafa def sama affaire ñaw dem ci kanam. est ñëw. Mali. Hmm. encore toog ak sama yaay. Hmm. sama yaay comme moom dafa dem Mekk donc man dama eh, relever moom tam. Hmm. après moom tam dama ñëw ci kii encore. waaw kon daal fi ne dafa maanaam dafa bëri ay relève yoo xam ne da nga ko yor ndax sa yaay bi mu dégg jógee Màkka. bi mu ñëwee liggéey bi yow la ko bàyyee. nga yor di ko doxal booleeg sa yëfu bopp. waaw kii tamit yàlla dogal moom it. mu suñu borom def ci moom la gën nga ñëw jël relève am kon yow da nga boole it ba am bali ay relève yoo xam ne jël nga ko téye ko looloo waral ngay seete ci différentes sortes de seet yi macha allah njëriñ nen yi ma gis nii mu bari lool waaw njëriñu nen yi laa bëgg a xam lu mu doon bon Papa Talla mhm. nen yaa ngi gis ni mhm. xam ma su fekkee ne caméra mi ngi xool ko bu baax waaw parce yaa ngi gis ni mhm. kenn ku nga xool bu mhm. baax nga bindi ko bu mel nii mhm. fois est ce yaa ngi comprendre mhm. soo bindi fois nga bindi vingt cinq bindi vingt ci biir nga baxal ko bu baax su baxal ba pare nga lek ko après nga sànn affaire bi ci suuf mais lan nga ciy bind avant avant vingt cinq ki garia hmm, dañ cey bind mooy secret waaw boobu moo nekk nii nga bindi un un un un est-ce que yaa comprendre. Mm-hmm. su fekkee nag comprendre no ma bindi ko ci fay. Mm-hmm. moo gën a mm-hmm. <laughs> jox ma benn dafa war a dafa war a leer de fii. voilà mi ngi nii <coughs> nga def ko ni. mi ngi ok série mu ngi xool bu baax a baax ku xam ko ci internet ñoom gis na ko bu baax a baax après nga bindi fii vingt cinq mille. vingt cinq mille ba nga bindi deux cent cinquante mille. est-ce que yaa ngi nga baaxal ko bu baax soo ko baaxal ko bu baax nga lekk après nga lance nga. sànni xollit bi waaw xollit bi nga toog cinq jours. man xam ma fan xaalis bi dina génne mais yàlla dina la may. dégg nga <laughs> waaw waay waay wuyu ma <laughs> Maysa Maysa lii dañ koy coupé ma dem def essayé ba pare fi mu toll nii door ko dugal parce que <laughs> ah Maysa lii. mais lan la secret la boo may nit ñi wala lan la au juste lii nii nga def. bon bii secret la dama bëgg la wax benn affaire yaa ngi gis bii tam. pomme bi dinaa ci ñëw. bii pomme la. waaw soo bëgg xaalis. Mhm. nga wut benn bic rek. bic feutre. feutre ou bien nga wut benn bic rek. bu ci mën a bind rek. nga def ko nii Massa Souleymane. bii six lay doon. est-ce que yaa ngi gis Massa Souleymane moo nekk nii. Mhm. nga ñaan ci sa soxla yëpp ci bii. Mhm. nga partagé ko en six parties. soo ko partagé en six parties soo mënu bind itam bàyyi. jël benn pomme rek subu soo bu subu nga jël benn pomme. nga ñaan ko ci kaw. Mhm. yàlla man dama soxla trois cent mille. Mhm. trente mille. Mhm. trente cinq mille. nga yem foofu nga coupé ko en six. soo ko coupé en nga jël cinq nga jox ko xale yi nga xaar xale yi ñoom dina lekk bosom ba pare après yu nga lekk sa bos. soo amoo xaalis maa ngi ci YouTube. <laughs> waaw waaw li dee gën a leer nee na boo amul xaalis maa ngi ci YouTube bi te ku fa dugg fekk fa numéro am kon jot ko dina yomb. waaw waaw li c'est te wax lool. li bu mu koy wax nga koo pare fi mu tëdd. waaw. <laughs> gaa yi kon yéen ko déggandoo léegi nag des na ci yéen na kenn ku ci nekk gaa yi moom xaalis rek lañ bëgg man moom du ma xaar suba. génn fii moo tee ma def ko moom. incha allah su ma moom xaalis nag fii lay dellu si kër gi maa yow kenn du ñu àtte moom xanaa nga teg ñoom ñoom yi ñoom Tamba Bambey yaay jeeg ñooñu ci buntu kër gi ñu vraiment dugg waaye de sinon damay dugg tam moo duggee dañuy xeex maa ngi waaw am benn problème dama fi gis loo xam ne ñun olof dañ ko fonk lool ndax bëri nañ dugg naa lu ñuy wax ni bëri na lu mu mën a dimbale doomu aadama waaw muy paftan paftan ma bëgg a xam li yow looy doyee paftan bi ak lan mooy njëriñam yaa ngi gis bi mhm. man xam su bëggee paftan du nekk Sénégal encore dégguma la suba. foofu <laughs> si daan liggéey dinaa màggal Sénégal. laay lay la laa. yaa ngi si poftaan bi. waaw si sa bëñ mi ngi la mel. bëñ. waaw nga def ko nii rek nga dindi benn nga wutu beneen dox bu tàng nga bés ko ci biir nga def ko ci sa bëñ jox na la cinq minutes sa bëñ lu mu deme deme deme. jële bi rek nga def ko ci ndox 5 minutes jox naa la. ndox ngay tàngal ba mu tàng. waaw nga tàngal ko tut rek nga def ko nii rek nga bés ko ci sa biñ. doon naan ndox mi lii ngay jël rek. ma ne nga jël bii rek nga def ko ci sa biñ su fa yow mënul lool nga bay ko ci ndox après nga def ko ci sa biñ nga def ko nii nii. gàllandiku ko nga tuur. bu nga tuur ko boobu du boobu boobu du boobu kese de dina la woon pour xaalis. Eh. mais maa ngi ñaari waa Sénégal rek. Mm-hmm. ñu def ko ba ba pare. ñu seey ba pare daal. après ñu wax man xam naa sëriñ yi ñoom dina ma dugg. sëriñ <laughs> yi kay dinañ la mere moom waaye fii ne population bi dinañ kontaan ndax gars dañoo sonn te dañoo bëgg ku leen dimbali. yaa ngi wutu waree nga def ko nii est yaa ngi comprendre. Mhm. soo nekk commerçant soo bëgg bu lu ñëw ci man may naa la ngir yàlla ngir sama mbag. Oh. man ne soo bugg bul ñëw ci man nga wutu bu bare nga bind ko bu mel ni soo munu tam nga ñëw mhm. ma bindi la ma jox la mais nga fay ma mhm. mais soo munu nga bindi mhm. est-ce que nga indi lu bare soo indi ou soo amul lu bare nga bindi bu mel ni nga ñaan saa soxla rek soo ñaan ba pare du lakk du dara nga teg ko ci sa kër nii avant dina woo billaahi tallaahi wax yëpp dama def mu waat ma de mais bi gee dina waat. bii bind nga ko ba pare nii. waaw. bii xanaa pour man la ma yóbbaale. ma ne bii yaa ko moom. Ah, dina la defaral léegi. <laughs> fi mu ne moom di ko jox gaañ fi ne bàyyi leen ma ma ba pare man. ma testé ba pare man. ma ne. Mhm. dafa may Sénégal lu bare xam na ko. Ah, déedéet li nga maye ni kay fi mu ne maye nga ko ci nen bi maye waat nga ko fii. ma ne ku def ku def bii avant bii dina woo billaay taala yo dina am xaalis. alhamdulilah rabbil alamin est-ce que yaa ngi comprendre. Mhm. boobu lu leer la amul dem te ñëw. kon daal li nga naan danga ngaa mën ci biir boor waaye mën ci bee boor. ma ne yaa ngi gisi garab yi. waaw garab yi yépp mun na indi xaalis. Mhm. même su fekkee ne demoo ci sëriñ mhm. nga wut ay garab traditionnel nga sangu nga naan boo moo baax ci nit. même si soo dem ci série mhm. nga wut ay garab xam ne yu baax la est-ce mhm. def ko ci marmite nga toog ko bu baax nga naan nga sangu mhm. man sama garab yi yëpp Mali la dafa jóge même garab yi si yaa ngi gis nii sama mag dafa indi benn conteneur même loxo def ko nii maa ko wàcce bi mu ñëwee moom utiliser wu ci dara man maa dem jënd yëpp man maa dem jëndi yépp indi ko fii parce que dafa may yeneen garab. Mhm. man mun ma ko dindi moom mun ko dindi dafa may paay ñoom dina ko dindi boobu moo tax man ne dama dem jëndi. Mhm. parce que ñoom dina ko dindi ak seeni secret. Mhm. jokkoo ñun tam ak seen secret. donc nit yi kese nit yu mun am xam yëpp. même tey. su ma ay nit mun na ma jàng. maa ngi disposition ñi Sénégal yi jàngal la wallaay ndeysaan est-ce que yaa ngi comprendre mm-hmm. même su ma gisee ay sénégalais tey mm-hmm. ku dafa bugguma dimbali jàngal ma mm-hmm. billahi taala nangu na macha allah parce que man dama bugg xam-xam xam-xam fu ma am dina dem waaw lu xam nga nit moom mënta mënta bëgg lu mu xamul mënta namm lu mu xamul waaye nit moom li mu juddu yaru ci màgg ci da koy gën di bëgg rek loolu mooy passion bi te liggéey bi ngeen def ki yaa doon na wax ne ma Papa Talla ma ne amul ma sañu maa bañ a def parce que ci man la nekk dafa bokk ci man. waaw bu ma ko defee bu ma ko deful parce que yaa ngi koy wax teyar nga woon. waaw lan moo tax nga bàyyi teyar bi teg ko fi. parce que kon passion bi nekk ci yow fi mu toll mooy xam-xam moo ne mooy sa passion ci nga bëgg di dund ci nga bëgg di dimbale ci nga bëgg di jëriñoo yi tamit. macha allah mu doon lu am solo. et puis Zanko dina la wax benn affaire tam. Mhm. dama bëgg waa président. Mhm. sama wax bi. Mhm. mais su fi nga ne yow mun naa jël boobu kese. nga partagé waa Sénégal yëpp dégg xam ma kan moo xam géej bi mais waa dëkk Sénégal yi wut nit ku xam géej bi def salat bu baax géej sumbe jun bi xam ma kan dafa xam géej bi de mhm. man kenn mun ma mhm. parce que miinu ma géej fii mhm. waaye ñi fi dëkk xam fi miin fi te am xam-xam te xam géej gi. waaw na leen président seet ñu dem def fa sarax bu am solo. su deful. Hmm. <laughs> man ma wax élection bi. Hmm. meeting. Hmm. dina ay ku dee. man man man naa wax loolu tey. élection bi pour maire bi. kenn ku ne soo moytu nga dee avant élection bi. <laughs> mais loolu doy na waat te yow mënoo def sarax bi yow mënoo buñ la joxoon sarax bi mënoo ko def mun ma mun ma mun ma mais dama bëgg waa sénégalais mhm. ku mun ne nga dem ci géej bi nga defa sarax ci géej bi léegi ñun en tant que population ñun tey par exemple bu fekkee bëgg naa mucc wala ma mbokk buy def élection ma bëgg def sarax boobu tey jii sarax bi lan lay lan la war a doon waaw nga dem ku xam géej bi mu laaj ko sarax bi lan lay doon waaw ok est géej bi dafa mere de. Hmm. de bu meree moom dara dunu jaar de de bu meree moom dara dunu jaar. ça fait un. Hmm. deuxièmement kenn ku ne si yaa ngi def élection bi. Hmm. nga moytu sa bopp. borom élection mënu ma dimbali de parce que le coup est déjà parti. dina ma ay surprise. lu garaaw. mais mooy sa jamono yële dañ dañ dafa am koo doon koo doon waxtaanal téléphone ma dégg la nga ni ko nañ moytu accident yi dina bëri lool ci ci ci ci ci balaa élection yi. déeta waay nga leen ba ci ay faatu dina ci am. te tey jii yow la nga doon wax loolu da nga ko confirmé waat ni lan la luñ la wan la wala luñ la. affaire bi yombul mais man mun ma dimbali yow. Mhm. ma ne nga wut ay sarak nga def sabo mhm. wax na moom saraka. Mhm. mais ma ne meeting. premier jour meeting. dina ma ay kuddee. ma ne maximum sept personnes. allahu akbar. jour boobu accident dafa def rek kooku dafa ma woo. su fekkee ne mi ngi ci YouTube dina ma dégg. dina waaw Maysa wax na ma ko. donc dina wax benn affaire. Mhm. kenn ku ne si yaa ngi def sa vote. Mhm. jigéen nga wut guro bu xonq. Mhm. ñett. ñetti guro yu xonq pour jigéen waaw. ak benn guro bu weex taal. ça fait quatre. nga fomp ko ci sa yaram nga sànni ko ci yoon nga dem voter. góor bu xonq ñaar ak benn bu xonq. ñaari guro yu xonq benn bu weex. bu weex est-ce comprendre. Mhm. nga fomp ko ci sa yaram même yow. nga mhm. def ko. incha allah kenn ku soo bëgg dem. Mhm. nga def ko. ok affaire bi yombul de. <laughs> ah waaye li nga wax de na moom. affaire bi yombul de mais mënuma dimbale aucune. jarul daal politicien yi dina seet si dina sonal. fi mu toll nii kenn. lu ma mënu wax ñoom rek. ñu dem ku xam géej. ñu def sarax bi daal sarax bi daal mooy solo bi moom moo mën a muccal ñëpp. ku def sarax ci géej bi. Mhm. après dinañu wax ma résultat fii. alhamdulilahi rabil alamin loolu kay fi mu toll nii sëñ bi message bi moom dana jàll bii moom dana jàll. xaw ma ban man mun na jour présidentiel aussi. jour élection locale yi wala présidentielle 2024 yi. 2024 bi. Mhm. su fekkee dafa am benn candidat dina dee man maa la wax. bu dee neuf lañu ñu nag. benn dina de su fekkee ne benn tam na du am élection. <laughs> ndax par force am ko ah man maa la wax mi ngi ci YouTube. Mm-hmm. lu ma xam loolu laa wax lu xam ko du ma wax loolu parce que loolu laa sama yaay dafa ma wax. Mm-hmm. loolu la sama mbokk yi dafa ma wax. Mhm. loo munu nga wax loolu loo munu bul wax. est-ce que yaa ngi comprendre. bu baax a baax. waaw ko dafa am problème ak sa jëkkër. Mhm. soo ñëw maa ngi fi. dégg naa boobu ay nga ci trop. ku am problème ak sa liggéeykat. Mhm. maa ngi fi ku bugg kayit itam. maa ngi fi. soo bugg jaay sa kër jarul. maa ngi fi. Mhm. Aramane mi ngi si sa kër maa ngi fi. sa sama jëkkër du ma jox xaalis <laughs> maa ngi fi. bul bul xas góor ñi waaye may sa fi mu toll <laughs> jigéen ñi dañuy wax noonu rek waaye góor ñi ñu ngi joxe ba dee dañoo. waaw dañoo bëri lewul rek. macha allah am na solo may mbuub moom la ñuy waxtaanal nii wax dëgg yàlla xanaa ñu njëkkanteeg waxtu benn question rek avant ñuy ñuy tëj suñu jotaay bi eh, may sa ñu ngi gis làmb ji da nga ne dootoo ci waxati fan yee laata làmb ji digga doxoon diggante Papa Sow ak Siteu démb nga am loo ci junjoon te la nga junjoon dafa mel ni gis nañ ko démb. bon affaire làmb bi. Hmm. lu tax man duma wax ci làmb bi parce que da nga xam doomu Adama. Hmm. kan ku ne yaa ngi doog sa xel mais hmm. yàlla dafa pare. su fekkee dafa am dina am xuloo. nga dégg benn sëriñ dina la wax dina am xuloo jour boobu mais yàlla moo ko affaire seetaan la est-ce que yaa mais dama bëgg wax rek avant gain nga organiser benn affaire nga dem ci sëriñ bu baax sëriñ yi dina la ñaan si sëriñ dafa la ñaan sa compétition yàlla dina def du yàq hmm. peut mun na nekk tam sëriñ dina la ñaan mais après dina yàq. Mhm. yàlla moo ko dogal loolu. Mhm. su yàlla nee na dina def benn affaire même Serigne mënul loolu. Mhm. Ah, yàlla de moom. yàlla ah, kay moom moom moom mooy mujj rek su boobu du am xuloo am mais soo gis dafa ñëw nii. dëgg dëgg métti maa rafetul. rafetul mais maa ngi ñaan yàlla rek. yàlla def dëkk bi yàlla def ñu am jàmm. allahumma que man. su ay sénégalais dafa am problème man daam dina problème. surtout parce que sama pap sénégalais la. Mhm. ah man tam sénégalais la. sama mhm. pap kër mi ngi fii piir Pire. bon sama mbokk yi yëpp mi ngi fii. Mhm. donc su sénégalais dafa am problème man dama am problème. ah parce que tu as une partie sénégalaise. mais wax benn affaire rek. may répéter encore. ku xam géej. waa sénégalais dina def tout possible wut ku xam géej ñaan ci géej. si yaa comprendre. Mm-hmm. dinaa wax beneen affaire encore pour élection. Mm-hmm. boobu pour pour cadeau. est comprendre. Mm-hmm. ku xam yow da nga nekk représentant ci élection bi. nga def tout possible nga wutu benn xar bu weex taal. ak benn sak ceeb. est-ce que yaa comprendre. nga ñaan saa soxal yàlla ma ne doomu sac bi dafa tëj. dama bëgg ku xotti sàkk bi sama wursi ubbi hmm. est yaa ngi comprendre nga hmm. jël xaar bi ak eh, sàkk ceeb bi soo mu teg benn xaalis ci kaw hmm. nga teg ko ci kaw mais nga jokk beneen nit ku jëkkëram nekk foofu ku jëkkëram nekk tukki wala ku jëkkëram gaañu wala ku jëkkëram gaañu ku jëkkëram waaw et puis su am doom nga jox ko kopp est yaa ngi comprendre soo def loolu même soo gaañoo mais yow man da am problème. macha allah maanaam daal sécurité la ci yow moom. sécurité la pour ñoom. tu commenceras en paix et tu termineras a paix. en am naa am na ñeneen wax naa ko ñoom. Mhm. def naa ko. dèjà <laughs> mais jox naa ko ñoom tam kaddu. macha allah rabbi waaw alhamdulilah. jërëjëf Maysa Mboup moom ngeen doon seetaan mbokk internet yi nga xam ne yéen ñuy suivre à travers Salam Vision ñuy amaat bégte bu baax a baax euh, dégg ngeen ko lim fi waxtaan yëpp li wax itam donte olof bi leerul nee naa ko moom dama doon wax magam ju baax ja soxna ki ay dara boobu nee naa ko bu sa olof bi ko doon kenn euh, daal lañ ci daal a wax rek ndax dégg ngeen ko li muy leeral donte déggut olof nee na waaye li muy wax kenn ku ci nekk ku jëm écran yaa ngi xam li muy wax lu mu doon kon macha allah ñu koy ñaanal bu baax a baax sama borom dolli ko taxaw te gën a guddul fanam bu baax a baax ban message ngay lancé tey ji à travers vidéo bi nga xam ne tey ji mi ngi yaa ngi toog ci kanam àdduna war la seetaan waaw dama fàtte benn waxtaan mhm. su ku xam sa doom mi ngi naan sàngara mhm. sooy ñëw dama am garab boobu ku naan sàngara waaw ak ku tox tam ak kuy tox am naa garab boobu ak faiblesse boobu maanaam kuy toxo kuy naan moom fi ne boo ko jekkoo fi mu toll nii. mais su ne sa jab sa jabar mi ngi foy kay maa ngi fi. comme am jabar jabar bi di génn di fooy di taxawal. même su fekkee sa góor mi ngi foy maa ngi fi. ku laal ko dina la set. lay <laughs> xam-xam daal soriwul dafa nëbbu rek ko xam-xam daal soriwul dafa nëbbu. <laughs> léegi léegi defe naa su féticheur mbubbu féticheur ak mbubbu euh, kii mbubbu chasseur. Mhm. dama daan dégg sa mag ji daan ci wax lu bari ne moom chasseur la woon chasseur la moo tax mbubb bi ma doon sol mbubbu chasseur loolu laa demal a wax chasseur hmm. ak féticheur du benn si yow gisu yére yi du benn non man yére yi dama bëggoon man benn bu ci ne sax nga wax ma ba fu mu bokk ndax am na yoo ci junni ñaar rek bàyyi wax nga ma yére murid bi wax nga ma yére féticheur bi mais ci biir féticheur bi tam am na yeneen yére yu fi nekk yoo xam ne ci biir féticheur bi ay façon section la comme par exemple hmm. da nga xam ay islam yi dafa am hmm. murid dafa am ay bayfal tijaan dafa mais yëpp ay murid ok a ah, ci biir murid gi am na baay Fall yi am na murid gi euh, Baye murid am na Hizbut Tarqiyyah. voilà est ah, donc ay féticheurs. dañu am ay secteur tamit. voilà féticheur ba moo lan da nga xam ay féticheur ku defaraat eh, wax ma soo jëlee ay affaires yi wuti ay ginaar ñaan ci kaw rey ci benn affaire boobu moo nekk féticheur. Mhm. chercheur nga dem ci àll bi. Mhm. pour wut ay e, comment on appelle ay. ginaar wala bidji quoi ay bidji. Mhm. ba mu nekk ay féticheur. ay chasseur mhm. mhm. waaw. ok donc sër leen boole rek. voilà féticheur chasseur sër leen boole. bon danoo daje ci école rek soo nekk féticheur. il faut que nga nekk chasseur. soo ko nekk chasseur il faut que nga nekk féticheur. maanaam parce que da am xam-xam bi. waaw léegi nag yow yaa jël soo nekk féticheur léegi. ah soo am xam-xam nga xool est-ce que am. benn affaire bi ci àll bi tey. Mhm. nga xool su fekkee dinaa ko am nga gis mu nga doo am nga nekk ci sa kër. nga daal di toog bañ a sonn. waaw <laughs> parce que daal la wóor ci jox <laughs> quels sont les derniers mots. <laughs> bon sama dernier mot moo lan comme c' la première fois maa ngi wax ni. Mhm. sëriñ mhm. ma gis. soo ci erreur. sama téléphone. su yow mun ma woo nga woo mu ma dem ba sa nga conseillé ma. Mhm. maa ngi ci disposition kenn ku ne. Mhm. même soo ci murit même soo nekkee sëriñ su fa nga dafa ma erreur ci sama wax nga woow ma nga corriger sama wax yi. Mhm. loolu rek laa bëgg wax. macha allah jërëjëf euh, sëriñ Meissa Mboup waaye itam jërëjëf euh, mbokku internet yi nga xamante ni yéen a ñuy seetaan à travers Salam Vision mbégte la am ndox nañ lañ ko ci tàmbali ba li koy waral itam mooy fi ñu ñëw ki ñu ñëwal ak li tax ñu ñëw fi. ba tax na rek kon du ñu def lu dul sant leen yi itam benn ku ci nekk fa nga xamante ni fa nga nekk la ngay bëgg di ko mébét di ko yéene yàlla na yàlla sama borom bi dul jeexal dara jàppandal lépp ci dara ji waaye barkeb xam-xam bu baax a baax euh, Maysa mi nga xamante ne moom lañ bokkaloon jotaay bi wax dëgg yàlla mu jël temps ndax ay nitam koy seet mu leen may leen ma bu ngeen ma songee ci liggéey bi nii sax du ma mën a liggéey ndax sama xel day nekk ci jotaay bi ma war a am kon jotaay yi tey bi am na fu mu ko toll am na itam fu mu ko yéegi ci dimension ndax bi mooy première jotaay bi nga xam ne moom ci décision boppam waaye ci décision bi nga xamante ni mbooleem askan wi mu bokk ñoo ko décidé samp ko teg ko fi ngir mu jël relève bi nga xam ne bi mooy relève bu magam ju baax de soxna ki yaa ay dara mu sëriñ Babacar borom Tamba Bandi macha allah rabbi ñu koy ñaanal fa mu tëdd tam yàlla na ko sëriñ Babacar te am yaakaar am nañ ci nee naa keroog ba nga xamante ne lañ taxaw yóbbu ko ba Tiwaawan di ba na ko tugalee ci biir armée la ba toog ba waaj di ko waaje denc ci la maam yàlla ngi ne fàng daj te dinaa leen loolee c'est ay misaal la yoo xam ne xam nañ ndax duñu dof duñ jaayu te na fi ne wax dëgg yàlla ñi ngi ci àdduna di gis di dégg itam macha allah rabbi kon ñoo ngi ñaan ci daraja yonent bi barke ba nga xamante ne ma nga woon moom itam yàlla na la topp yàlla na la wuyu xamante ne mi ngi woon ci seen waajur wa suñu papa Sidi Mboup yàlla na la wuyu si waaye itam barke bi nga xamante ne mi ngi ci mama Ana itam yàlla na la wuyu si ndoon te jox na la ko waaye yàlla na la gën a wuyu si ba yéene ji nga xam ne sa mag ji amoon na ko yaakaar ñi nga xam ne nit ñi amoon nañ ko ci moom itam ñu am ko ci yow te nga yóbbu leen fu raw fa nga xamante ni wax dëgg yàlla amoon nañ ko ci moom ndax xam naa ni yéeneem yaatu woon na lool ndax xol baa rëy rëy rëy ba xajoo du ne macha allah waaye njottu naa ni itam la woon ca moom mi ngi fi ndax daanaka kenn du leen kenn mun leen a séparé ñaan ñu bokk ndey ak baay bokk benn dé bokk ci lu ñu yëngu macha allah def naa ni ñooñu tàkkale leen du yomb li ngay wax sànkale ci biir jotaay bi ñaari kuy dañ dul bokk mbalka ndax mën ta doon kuy nekk ndakaaru nga doon kuy nekk ndakaaru moo tax nga toogoon diggante Kaolack ba ko ak waa bitim réew waaye tey bi waxtu wi jotee nee leen génn nga te yegg nga te yaa ngi toog ci daara ji nga xam ne fii la santoon macha allah rabbi kon ñoo ngi ñaan sama borom mu yeggale la ak sago macha allah rabbi sant bu baax a baax staff bi ndax wax dëgg yàlla nee naa staff moo ne fii staff a liggéey lii itam ba lii mën a sotti macha allah rabbi kon fàttewuñu kenn dañuy bañ lim ndax bu ñu limee dañuy jum waaye fàttewuñu kenn sant ñëpp gërëm ñëpp joxante buur yàlla dolli noo ay maqaama yàllaawo bisimil ilaahi ci barkeb sayxi fàddilu mi buur yàlla dolli noo ay maqaama yàllaawo bisimil ilaahi ci barkeb sayxi fàddilu mi buur yàlla dolli noo ay maqaama yàllaawo Bienvenue sur Salam Vision